mu mel ni bi passé ñu ngi leen waxtaanaloon ci wàllu xeetu ndox yi am maanaam ndox yi nga xam ne moom la sharia wax ne moom la ñuy utiliser ci sangu farata ci jàpp ci raxas place boo xam ne sobe nga fa woon yooyu noonu waxtaane woon nañ ci bi passé kon bu ko defee nag tey incha allah ñu fas yéene ubbi li ñu tudde al wudu te mooy wàllu njàpp njàpp nag dafa am li ñu tuddee ay farata am lu ñu tuddee ay sunna am ay ngeneen bu ko defee tey incha allahu ci jeetaayu tey bi dañ leen di indil faratay njàpp yàlla subhanahu wa taala moo wax ci suratul maida aya 6 aoudu billahi min alsheitan irajim bismillahi rahmani rahim ya ayuha amanu ida qumtum ila alsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayni yàlla dafa wax ne ay yéen ñi gëm yàlla su ngeen jógee di dem julli ji na raxas seeni xar ak seeni loxo ba ci seeni conc na ngeen masaa seeni bopp na ngeen raxas seeni coñ seeni tànk ba ci ñaari cheville te mooy ñaari dojoor yi kon loolu mooy aaya bi nga xam ne mooy indique njàpp bu ñu delloo nag ci farata yi gannaaw bi nga xamee ne sayduna muhammad moo wax ni innamal amalu binniyaat mooy jëf yépp ci yéene la aju jëf yépp ci yéene la aju mooy innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imrin ma bu ko defee nag bu ñu ñëwee ci faratay njàpp ci mazhab imaamu malik radiallahu taala moom dafa wax ne faratay njàpp juróom-ñaari farata la bu njëkk bi mooy intention bi mooy yéene maanaam ki nar a ju ki ma nar jàpp waramu a nar a julli dafa am loo xam ne mooy tax jaamu yàlla boobu nangu te mooy intention bi mooy yéene bi ngay def si kon bi ci jiitu ci farata yi mooy nga am yéene ne fas naa yéene jàpp loolu mooy bu njëkk bi nañ ko bàyyi xel yéene nag du lekkul lu ñuy wax danga koy fas ci sa biir xol ne fas naa yéene jàpp rek waaye doo fa nekk wax ko ci kaw ndaxit mu ngi mel ni bu fekkoon ne danga doon julli yéene bi nga wax ko waaye ci biir wax ji li nga wax dafa contraire ak li ngay def maanaam yaa ngi julli tisbaar ci bi ngay julli nga wax ne fas naa yéene julli sa xam nga li nga wax ak li sa xol fas du benn su boobaa du tere julli googu dana baax lu tax mooy sa yéene mooy julli tisbaar waaye sa làmmiñ moo tudd sa kon farataay njàpp ñu jàpp ko bi ci jiitu mooy yéene yéene nag ñu ngi koy defee ci boo ñëwee booy raxas sa ñaa sa xar-xanam maanaam boo seetloo njàpp ni mu demee li ngay njëkk a def mooy raxas sa ñaari loxo dañu koy expliquer pour ñenn nekk ci ñi nga xam ni dañu ko booy jàpp li ngay njëkk raxas loolu li muy tekki mooy qualité ndox mi nga war a utiliser maanaam ndox mi ni mu mel pour nga xam ndox mi couleur bi ni mu mel say loxo mooy déterminer couleuru ndox mi loolu tax boo defee ni ndox mi rek mën nga xam couleuru ndox mi ni mu mel boo fa jógee nga galax ndeku galax ndeku boobu ngay galax ndeku moo lay won ne cafka ndox mi nga war a jàppee lu mu mel léegi boo fa jógee mooy sarax ndeku te mooy nga jël ndox mi def ko sa bakkan sarax ndeku googu moo lay wan ndox mi euh, xet gi mu am su boobaa nag léegi def bi nga raxasu xam nga ne ndox mi amul couleur bi nga galaxndikoo xam nga ne ndox mi amul cafka bi nga soroxndikoo xam nga ne ndox mi amul benn xet su boobaa ndox mi wóor na ne ko ndox mu naturel la su boobaa nag à partir de foofu nag ci nga yéene nag fas yéene selmu selmu kon ñaareelu farata bi mooy raxas sa xar xanam te mooy selmu raxas xar xanam ñetteel bi mooy nga raxas sa loxo li ko dalee fii ci poigne bi ba ci sa conc yi fii waaw li dalee fii ci tëkku njara bi ba fii farata ci njàpp beneen bi ci des mooy nga masaa sa bopp massa boobu buñ koy wax mooy dangay ngay teg sa loxo fii nga xam ne moom la sax saxu kawar bi commencé nga puus ko ba mu dem ci gannaaw bu fi sax saxu kawar gi yem nga delloo siwaat sa ñaari loxo loolu mooy ñeenteelu farata bi te mooy massa bopp ale bi rek mooy farata dinañ ci ñëw ci sunna yi juróomee bi mooy nga raxas sa ñaari tànk raxas ñaari tànk nag buñ koy wax mooy booy raxas sa say say tànk ngeen baal ma pour ñi koy xool booy raxas tànk bi bu dee droite bi yaa ngi commencé raxas ci baaraam bu ndaw bi ngay commencé raxas raxas loolu ba mu wàcc nga raxas yëpp ndax dañuy bañ mu am benn espace boo xam ni ndox mi laalu ko kon booy raxas ci baaraam bu ndaw bi ngay commencé raxas ñëw nii bu raxas tànk bi yëpp ba mu daj bu nga xam ne benn espace doo ko bàyyi ci raxas bi mais loolu dafay ñëw ba ci tuuti ci dojoor bi foofu ngay yemale njàpp bi waaye bul yegg si ba fii kon fii nga yemale njàpp bi boo ko yemalee fii tamit ayul waaye li gën mooy boo paasee tuuti sa sa sa cheville bi rek nga yemale ko foofu kon loolu mooy juróomeelu farata ci njàpp juróom-benneelu farata bi mooy alfawru mooy gaaw bi gaaw bi nag waxuñ yàkkamti gaaw bi mooy nga def affaire bi ni mu ko war a defee te mu bañ a yéex lool bañ a gaaw lool te mooy na nekk juste milieu juróom-ñaareel bi mooy ak dalku mooy ragg bi frotté xam nga ndox mi booy sotti rek te sa loxo rombul ci kaw cër yi ndox moomu euh, cër booba du mën a set kon juróom-ñaar yi daal mooy faratay njàpp kon ma dellu si rek pour résumer ko faratay njàpp juróom-ñaar pour ñu yéen ñuy déglu faratay njàpp juróom-ñaar la juróom-ñaar yooyu bi ci jiitu mooy yéene bi yéene mooy intention maa ngi koy commencé mooy booy raxas sa xarxanam fa ngay fas yéene jàpp bi doonte am nañu wax ni bi nga jógee fas yéene jàpp rek yéene bi dugg na kon loolu itamit jar naa xam ñaareel bi mooy raxas xarxanam mooy sëlmu ñetteel bi mooy nga raxas sa ñaari loxo ba ci ñaari conc yi mooy avant bras bi ba ci kudd bi nga raxas ko beneen bi mooy massa bopp massa bopp ale bi boo ci gannaaw sax saxu kawar bi ci sa loos bi beneen bi ci des mooy raxas ñaari tànk yi ba ci ñaari cheville beneen bi mooy nga gaaw ñeent juróom-ñaareel bi mooy rag kon juróom-ñaar yi mooy faratay njàpp kon bu ko defee pour bañ a gën a guddal ñu fexe rek benn bu ci nekk buñ ci ñëwee rek ñu jël ko benn par benn bu ko defee nit ñi mën ko jëriñoo bu baax mën ko dégg kon ma jaaraat ci résumé ko faratay njàpp juróom-ñaar la bi ci jiitu mooy yéene bi mooy intention yaa ngi koy defee ci booy raxas sa xar kanam doonte nag boo amee intention rek wax ko ci sa biir xel yéene bi dugg na ñaareel bi mooy raxas xar kanam raxas xar kanam ñetteel bi mooy nga raxas sa ñaari loxo ba ci sa ñaari conc yi ca mooy avant bras bi ba ci kudd bi masa bopp bi ale bi boobu farata la beneen bi ci des mooy raxas sa ñaari tànk yi mooy droite bi ñaari membre nag su amee booy raxas toujours droite bi nga njëkk raxas doog a raxas gauche beneen bi mooy gaaw bi beneen bi ci mujj mooy juróom-ñaari bi mooy ragg bi il faut ngay farate booy raxas toujours bu ndox mi di dem ci cër bi sa loxo bi dafa war di raxas dafa war di ragg ñaareel la plupart da ngay téye ak sa droit bi du sotti bu ko defee goos bi di ragg kon nag yi dem moo day farata yi bu ko defee bii ñëw incha allahu danañu ñëwaat ci gën a leeral am loo xam ne bu fekkee da nga doon jàpp dem ba ci biir nga am benn membre boo fàtte nan nga war a def ndax njàpp mi ak ya ci aju yëpp incha allah dinañ ci ñëw kon nag yàlla ñu yàlla may ñu fekkeewaat ko incha allah koo defee képp koo xam ne am nga laaj boo ko jaaralee ci ci site bi incha allahu danañ ci jot ci wàllu njàpp ak yi ci aju incha allah tout boobaa dinañ ci tontu li nga xam ne moom lañ jot a xam yal na yàlla may dëgg topp boo defee ñu gërëm nag ki nga xam ne moo ko doon jël muy Kéba Sané caméraman bi di ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan émission yi képp koo xam ne nag bëgg nga affaire yi émission yi bañ di la raw da ngay abonné rek incha allah kon bu ko defee lépp luñ ci def rek da nga a jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyiko ko jaa ngeen jëf.